ba tey rek daal ñu àddu ci leneen ci xëtam mu njëkk ba ci leeral le point net le fils de Khalifa Sall arrêté par la DIC au parquet ce qui s'est passé li nga xamante rek daal mooy doomu xalifa Sall dañ ko daal di arrêté rek daal dig moo daal di def ni ni mel daal di ko déféré rek ca parquet euh, li xew rek mbir ñu koy daal di xamal ci yéeni kaay gi euh, ki nga xamante rek daal mooy Ismaïla Sall di euh, doomu leader politique bi di taxawu Sénégal di xalifa Sall moom nag daal dañ ko daal di arrêté rek daal ki daal di def ni ni mel mooy division des investigations criminelles dik rek daal ñu daal di ko defeere ca parquet nag démb rek daal ci ay information yi ñu jot bu ñu sukkandikoo ci quotidien ci eh, bés bi muy le jour rek daal ab rapport gi nga xamante daal na génn muy affaire escroquerie foncier bi nga xamante rek daal ci ab somme bu toll ci 46 eh, millions ci suñuy koppar loolu daal moo waral daal ñu daal ko defeere ni daal ñuy daal xamal li nga xamante mooy eh, mbir ma ni daal di demee ab italien daal moo ko mobiliser réew moom ki nga xamante rek daal moo daal di porter plainte ni mim na nii nag daal daa mel ni affaire bi commencé depuis 2019 liñ ci daal di xamal ci yéeni usine bu café fii ci euh, Sénégal ki nga xamante rek daal mooy Ismaïla Sall moom daal dafa daal di proposer rek ab service nga xamante mooy investisseur bi moom sax amoon na terrain ñu daal di xamle ni ni ci ab surface élargie waaye nag doomu Khalifa Sall bi nag moom dafa daal di woon promettre rek daal dina ko daal di jox ab euh, terrain xamante ne rek daal ki nga xamante mooy Mouhamed Gueye moo ko daal di moom te euh, sax Mouhamed Gueye moomu rek daal ab tur bu fictif rek daal euh, ci dossier minimel ñu daal di xamle ni ni mel daal dig dina ko teg loxo ba daal dina ko defeere ca parquet naka démb rek